وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi ñu ngi leen ziyaara ci bis bi tàdd bi di jiital ci ziyaar bi kilifa gu mag gi di ñaan sunu boroom gën koo dëgëral gën ko kàttanal may ko wér yàggal ko lool ci sunu kanam may ko mboolem kilifa yëpp ak mboolem jullit yëpp ginnaaw loolu suñu waxtaanu tey dafa am xew-xew boo xam ne maanaam lu xew ci jamono loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne buñ demee ba mu jug jamono dana xew sëriñ bi ci nekkam sëriñ bu mag bi ci ci nekkam mu xamal ñu ne loolu tàmbali naa xew daal li ñuy jox ay matuwaay yuñ ca war a fegoo ak nuñ ca war a doxe ñu dem ba toll ci nag ci jëm jamono joo xam ne ci digg ba ñu ci digg xew-xew ba loolu moo di lan moo di suñ boom dafa wax ci alxuraan ne alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaxut fa qaatilu awliya alcheytaan inna kayda alcheytaani kaana ci alxuraan ne ñi yàlla ñoo yàllaay far ñuy féeteeg yàlla far moom ànd ak yonentam di ko xeexal ciw yoonam ñi nga xam ñoo ko weddi nag dañoo farag sheytaane ànd ak moom di xeex yàlla ak yoonam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamaloon ñu ne bu ñu demee ba mujjug jamono nit dana xëy dib jullit gont doon yéefar nit dana gont nekk jullit xëy dib yéefar wala yaas billahi taala loolu boo xam bu ñu àggee ci mujjug jamono loolu dana xew bi ñu ci jamono sëriñ bi mu xamal ñu ne loolu maanaam ñàkk ngëm ngëm gu deñ rekki ku ngëm lu yomba yo yomb la ndax am na ñoo xam ne dañoo jóg seen yitte yépp jëme ko ci rekki ngëmi nit ñi dindi ngëm ci xolub nit Euh, xam nga gëm dafa am lu koy tegtale ci xol di am lu koy tegtale ci ay ci aw melo ak i jëf ku gëm yàlla da topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem di ko ragal di ko sopp di ko yaakaar di bëgg lu yàlla bëgg ak ku yàlla bëgg di bañ ku yàlla bañ ak lu yàlla bañ loolu day firndeel ngëm képp ku mel noonu manaisan sedd na ko gëm na yàlla waaye ku dem ba loolu yëpp nekkatul ci moom kooko kon tàqalikoo naa ngëmam doonte yëgu ko mën na ko bañ a yëg sax mbaamu boole bopp ci jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wax ne man ahabba fi llahi wa abghada fi llahi faqad istakmala al iman kuy bëgg ci yàlla di bañ ci yàlla maanaam kuy bëgg la yàlla bëgg di bëgg ña ca ne di bañ la yàlla bañ ak di bañ ña ca ne kon kookee ak ngëmam mat na sëriñ bi wax ne ñaar yooyu nag ñoom ñoo ko may lim am xubbiya fillaahi wa bughdi fiihi lii aw salaa ma kuntu astafihi ci jamonoom dafa am ñu ko doon laaj ne ko galag bi tubaab yi laaj nit ñi maanaam impôt ndax wares leen koo jox mu ne tubaab yi li ñuy laaj nit ñi galag boobu boo ci gën a tuuti ndax ngëmi nit ñi lañ bëgg a dindi waaw gëm gi nit ñi gëm yàlla nekk ay jullit seen yitte mooy dindi loolu ci seeni xol loolu nag moo gën a yitteel téye loolu moo gën a yitteel téye alal kon bu ñu la laajee alal ji alal moom képp ku ko joxe te yàlla tax képp ku joxe alal te yàlla tax rek danga nga am pay yàlla ci joxe ga ak anam mu joxe ga nu mën a deme kon na ngeen farlu ci wattu seeni ngëm téye seeni pas-pas ndax tey ñooñu mooy dindi ngëm ci seeni xol moo taxoon sax mu dem ba àgg ci ne na ngeen di saxal saa yu ngeen jullee jullik farata ngeen jàng sootul ixlaas fukki yoon ak ñaar xam nga sootul ixlaas moom mooy mooy mooy tawxiid mooy tawxiid ju sell wéetal yàlla gu mat sëkk mu ne ku ci julleeti ne jul jàng lixlaas fukki yoon ak ñaar ku yoroon wird te ko booleeg moom na ko boole ku ko yorutoon na ci yam ndax fi mu ne sàmm ngëm moo gën a yittee leneen lu mën di doon loolu ci jamonoom la ko waxoon ñu dem nag ba fi mu nekk ni li xew mooy ci réew yi nasaraan yooyu dañoo dem ñoom ba ngëm amatuñu ko maanaam génn dañoo génne ngëm ci seen xol am yëgatuñu ngëm yàlla yëgatuñu ko ci seeni xol xamatumu lu xamatuñu lu ñu bëgg lu mu bëgg xamatuñu lu ñu bañ dañ koy saaga di saaga bi yonentam di ko ŋàññi di leen reetaan di ko suufeel di ko jéem laa di ko jéem a suufeel euh, te loolu dañuy bëgg ñépp ànd ca loola di ko def mbaa ku ko mënta def it fu ñu koy defee bu mu la naqari waaw boo gisee kuy ŋàññi yàlla mbaa kuy suufeel yonent bi sallallahu alayhi mbaa kuy ŋàññi alxuraan mbaa kuy def safaan bu rëy rëy rëy ak lu safaan ba rëy rëy loola bu la bu bu mu la naqari bu la naqari bu ci jëm dara ah, loolu kon ñoom foofu lañuy yegg ca seeni réew te yonent bi saas dañoo waxoon ne ku gisu safaan na ko dindi ci loxoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp ku gisub safaan na nga ko dindi ci sa loxo boroom xam-xam yi ne loolu buur a ko moom ak ku yoreeb atteem baa nga dindi ko ci sa làmmiñ ñu loolu boroom xam-xam yi ak ñi am kàddu goo xam ne mën nañoo laabiire ñoo ko moom ñoo ko amul benn ku mënul dara ci ñaari yoon na ko naqarlu ci xolam na ko metitlu te sib ko bañ ko te bod te dog te digganteem ak ñi nga xam ne ñooy def loola te di ko ñaawlu mu ne loolu nag ku ko deful moom dese woo amoo benn lu toll ni fépp wa gën a tuuti ci ci ci ci ngëm amu nekku ci xolub kooka euh, loolu <coughs> la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nga xam ne kon képp koo xam ne yaa ngi gis ab safaan bu ñuy def di ko fésal te du la naqari doo yëg sax ne mi ngi am kooku moom ba yow mu xam ne kon bu fekkente ne jàpp na ne gëm na it ngëm moom nekkatul ci xolam bu ñu delloo ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañu nag ñooñu kon ñoom xeeti mooy yàlla yépp dañ koo daganal yi ci gën a rëy dañ ko yoonal dañ ko yoonal def ko aw yoon woo xam ne ku mu soob def ko te ku koy def kenn waru laa wax dara te la ci gën a rëy mooy daganal ab sëy ci diggante ñaari góor mbaa diggante ñaari jigéen ñu daganal ko ne ku mu soob mën nga koo def nu mu la neexe te kenn waru caa teg baat yow mi mel noonu kenn waru laa sajju xef kenn waru laa gàntul dara loo bëgg dañ laa war a yemaleeg ñépp mu mel ni yaay ka yaa ka gën a baax yéen a war a yem jàpp na ku defut loolu yow kon dañoo war a jëflante yow ndax meloo na nga war a mel nga xam kon li ñuy jëf li ñuy dox jëm ca moo ñu dem ba nit ki yemale ki gën a baax ak ki gën a bon ñu yemale ko ci seen xol dootoo bëgg ku baax dooto bañ ku bon loolu ci loolu ci lañuy liggéey di ko jaar nag ci di jëfandikoo ñaari jumtukaay jumtukaayu alal ak jumtukaayu dooley nguur dañuy sos ay mbooloo yu wuute yoo xam ne alal ju bare bare bare lañuy dañ leen di wutal ku ca bokk rek sa loxo daal di jot fépp loo bëgg daal koy am ci wàllu alal foo bëgg a àgg ci daraja daal koy ah, daal di fay àgg waaye nag loo am nag ci daraja ak baat dangay tax wëlbati nag delloo leen jukkal liggéeyal leen ci lu leen di aar ak luy jëmale kanam seeni mbir loolu moo tax ñu baree bari am na fañ buñ fa bëggee àgg mbaa loolu buñ ko bëggee am dañuy dem bokk ca mboolooy kuréeli seetaan yooyu nga xam ne e, ñu mel noonu ak ñe xeet ñoom ñoo koy sos di ko tasaare jëfandikoo ngool dooley nguur maanaam daje ya nga xam ne fala réew yépp yi daje te ñoom ñoo fa ëpp doole ñoo fa gën a bari ëpp fa alal ëpp fa dooley euh, jaamaarloo ci mbootaay yooyee foofa lañuy dem tëral fa ay yoon yuy daganal lépp lu yàlla tere rawatina lii ñuy wax nii daldi di na nag ku ku bokk ci mbootaay gii nang ko nangu te boo ko nangoo nang ko doxal ci sam réew boo ko doxalee am na alal yu bari yu ñu la mën a dikk ak yombal waaye nag soo ko nanguwul nangam ak ki nangam ak ki nangam bu ko defee nag buñ ko fa nangoo daal di fab fa doole nguur yooyee nguur yee ko nangu yëpp dañuy daal di jëfandikoo seeni doole ñoom ci seen biiri réew ngir doxal fa lii nga xam ne kuréel yi seytaane yëpp ñoo daje ne na daj ci na daj àdduna kapp bu defee ñu jaarale ko ca fa ñuy tëralee yoon ya sàtti réew ya fañ koy tërale ñu jaaree ko foofa jaaree ko fa ñuy tërale yoon yi ñuy doxal ci biir réew mi yóbbu jox ko jox ndigal ñay doxal àtte ya ba ca ña koy ñay aar ñay mooy ña koy ñay juyoo ak ñoom da ko tàmbali ci fa gën a kaw ba ci fa gën a suuf daal ñëpp ñu jox leen jëfan jox leen dooley lii na sax lii na sax te képp ku ko bëgg gàllankoor nañ ko jëflanteeg ñoom euh, loolu nag jàpp nañ ni ñoom réewi jullit yi ñooy réew yi nga xam ne ñoom ñoo të walla ñooy tëtalu ngir gàntu loolu waaw donte bu ko seeni nguur nangoo itam mboolooy réew mi ñoom nga xam ne ñoom ay jullit lañ yoo xam ne ñu ci bari ñu ngi yëg ngëm ci seeni xol di ñaawlu lu ñaaw di bëgg lu baax ñu ne ñooñu kon nañ fexe ba loolu na dañ ci ñoom bu fekkee mag ña raw nañu itam kon nañ dem ca ndaw ñu njëkkanteeg ñoom fañ leen di jàngale ak fañ leen di yare ak la ñuy gis ñu leen koy wan ak lañuy ñuy dégg lépp nañ jaari foofa euh, ba def ci ñoom euh, lii nekk ci ñoom ñii di wax moo ñu dem ba dootuñu gëmati yàlla dootuñ ko bëggati dootuñ ko ragalati dootuñ bañati ku bañ yàlla ñaaw ñaawlooti dara lu ñaaw nga xam ku baax ak ku bon la ñuy yemale lu baax ak lu bon lañuy la yemale bu ko defee ñoom la ne fa ñoom muy weddi yàlla ak suufeel diine loolu daal daj àdduna sépp kapp loolu xam ngeen mooy li xew ci jamono jii di loo loo xam ne xam ngeen ne ñaawaay bi ak rëyaay bi foo ko takk wees na ko ndax ñi xam ñëpp di jàng alxuraan karim gis nañu ne am na aw xeet wu meloon noonu ci àdduna maase woon ca di ko def waaye waa dëkk boobee yàlla dafa yebal dafa taw ay dafa tawi xeer ci seen kaw taw ay xeer ci waa dëkk ba ba ñépp dee mu digal malaaka ñu ñëw wëlbati suuf sa la féete woon kaw féete suuf dafay féete woon suuf féete kaw ngir ñaawlu loolu ak sib koog bañ ko xam nañu nag yonent bi sallallahu alayhi ci jamonoom yàlla neewoon na ko bii ko yéefar yi di wax di naa ko li ngay wax ci yàlla bu dee dëgg tawal ay xeer ci suñu kaw waxal yàlla mu taw ay xeer ci suñu kaw nee na yàlla du taw ay xeer ci seen kaw li fekk yow yonent bi sas yaa ngi ci seen biir te ñoom it ñu nekk ay ñu gëm yàlla di jégalu yàlla kon xeetu lislaam yi ne ci kaw suuf di nodd di julli di jàng alquranul karim di tudd yàlla di def lu baax di di di bañ lu bon mën nañu jàpp ne kon ñooñu di jéggulu yàlla yit xëy na kon moo tax ba léegi yàlla tawut ay xeer ci kaw suuf wëlbatiwut suuf benn ko ñi ci nekk ñëpp faatu ngir ñaawlu jëf ju ñaaw ji nga xam ne mooy am waaye bu bu loolu amut itam nañ xam ne kon mer kon ma nga fa mer maa nga fa mbug mbugal ma it ma ngay nekk ña nga xam ne ñoo nekk ci loolee wala yaasu billahi taala kon képp koo xam ne ab jullit nga amuk njaboot war nga bàyyi xel ci ne yow mi mi jàpp ne tënga sa njaboot moom ñu ngi leen di fexeel di ko jaare ci barab yi jàngukaay ak barab yarukaay yi ak barab yi ñuy wanee li ñuy gis ak fi ñuy dégtale li ñuy dégg ak bépp jumtukaay bu mën a jeexital cim xel baa mu mën a jeexital cib xol danañ ko jëfandikoo ah, ngir li ñu bëgg ñoom ñu am ko kon loolu war naa yee xeli jullit yépp war a yëngal seeni xol ñu fogaru te ji seet pexe mu ñuy def ba jaamaarloog lu mel nii ci anam yi xel ak xalaat ak ak ak ak xam-xam ak waaj waajal lu soree sore lu ñëwagul kon ñu ngi tënk fii kàddu gi di wax ne yàlla na yàlla dimbale képp kuy dimbale yàlla waaye yàlla na yàlla toroxal képp kuy xeex yàlla ak diine asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu